asalaamaaleykum mbokk auditeur auditrice euh, réew mi FM dal leen na jàmm seen jotaay li ci réew mi quatre sujets yu ñu indi tey euh, bokk na ci euh, ciment bi gannaaw Soko gannaaw Dangote Socosim arrêté na lépp luy production ciment dinañ ci ñëw dinañ ñu waxtaan itam ñi nga xale yi nga xam ne jot nañu génn àdduna dañoo électrocuté wu ndax ay. Euh, groupe électrogène yi nga xam ne ay pompe plutôt yi nga xam ne ñu ko doon utiliser ngir évacuer ndox mi seen kër yi waxtaan euh, waxtaani itam euh, inondation yi ci aéroport bu Saint-Louis laata ñuy daane daanele ak état bi nga xam ne jamono ji dellu na ginnaaw ci njaayum benn pàcc université Cheikh Anta bu Ndakaaru espace ECA samay collègue lay bàyyi ñu nuyoo balaa ñuy ubbi waxtaan bi ji li waaw maa ngi nuyu mbokk yi déglu rajo Rewmi FM ñu ngi lay nuyu di nuyu kon ñu ñuy teewlu ñëpp. waaw Moreau bu ñuy nuyu Dabe donc euh, premier sujet bi ñuy waxtaanee tey euh, Dangote ay fan yu néew moom euh, yóbbu woon na lu toll ci cinq mille employés chômage obligé arrêté liggéey bi ndax dañoo obligé arrêté itam li di production Skima tey itam Sococim moo arrêté li nga xam ne mooy production. gannaaw euh, conseil de consommation euh, bu ñu organiser woon fii euh, ministre bu ñu dénk wàllum commerce organiser ko fii mardi bi ñu génn ba ñu génnee ci boobule conseil amul benn décision bi nga xam ne jël nañ ko ngir génnee secteur cimentier ci crise bi nga xam ne moom lay jànkonteel ndax état bi bloqué na njëg yi donte njëgu matière première yu ci mel ni charbon clinker emballage gypse pièce de rechange yooyu flambé na ëpp na 200 pour cent li ñu koy jëndee donc tey ci marché bi bu Sococim arrêté ne dootul produire lu ëpp 10 000 tonnes de ciment un mois ci marché bi lay daal di produire mu doon jafe-jafe pour ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi somb tabax wala ñi nga xam ne am nañ aussi idée pour euh, di tabax Abdou Khadre Seck du ci sa jàngat. loolu nga njëkkee si man. yéen ay tabax neex ma rek. ah eh, Sylvie ah yow daal yaay xool léegi kon émission bi dafa am ñeew xam ne lu leen neex def. <laughs> ah. yaay non sujet bi ñu mu concerne. Ah, non buy laaj fii sport man lay njëkk laaj buy laaj tabax kay mu njëkk a. la <laughs> société ñu laaj moom da ngaa nekk ci chantier. Mm. man <laughs> euh, mais xam nga man li may njëkk a wax mooy dama yaakaar ne. gis nga bi ñu jugee ci élection législatif ba léegi dama remarqué ne euh, ak gouvernement bi dañoo jéppi askanu Sénégal <laughs> maanaam dañ leen a mere maanaam gis nga tey jafe-jafe yi Sénégal yi am ni soo xoolee dafay mel ni nguur gi jéemu ci dara mm-hmm. ci njëgu yokk yi ndax daa nga dégg bu njëgi yokkoo ñoom ñu ne wàññi nañu taxes yi même danañ ko gën a. danañ ko gën a ASOM def na conférence de presse ko gën a wàññi ci biir euh, xam nga ASOM. bis bu set ma ngi menacé commerçant yi ci wàllum yokk bi. Hmm. mais deful résultat. Hmm. gis ngeen ne état waxoon na ne day subventionné wàññi yenn prix yi yenn taxes yi mais gis ngeen ne deful résultat léegi ba léegi ma ngi yokk kon milliards yi amul benn njëriñ man ma gis ne Macky saal si boppam ak gouvernement bu Sénégal euh, li leen askan wi wan ci élection yi passé ndax Macky Sall nag dafa gaaw a mer pour ñu ko xam <laughs> euh, dama yaakaar dafa jéppi askanu Sénégal maanaam xam nga heure bi daana fekk ngay dem gis ñu dem Kër Massar ak ci mbënd meek euh, ci yëmbal ak ci mbënd meek zone ah, de captage ak ah, non ministre bi ñëw na non ministre bi taw yu njëkk ya ci bunt bi la yem maanaam taxawaay bi ñu doon am a communication bi ñu doon def maanaam li élection passé peut-être moo tax ñu xam ne fi ne nii élection amaatu fi mhm. mais xam ngeen ne lii fi xew si njëgu yokk yi avant élection yi doon ngeen dégg l'état bu Sénégal doon wax man pour man Macky Sall dafa jël jafe-jafe yi askan wi dund fi ne nii da sax moom mën nañ tax lu koy wax nag si suuf mhm. loo xamante ni amaana bu ñu ko déggoon sax musiba bu kum la ndax Macky Sall moom jàpp naa dañoo jéppi mhm. ndax wax dëgg yàlla <laughs> euh, mbënd maa ngi ni nit ñu nekk ci biir ndox mi njëg yaa ngi ni yokk ba maara day yi ñoom seen yoon nekku ci léegi ciment bi nga xamante ni nag fi ne nii euh, yokk na ñoom nee nañu. on attends waxaguñu yokk arrêt de production. waaw non yokk na laa wax man maa ne ciment bi yokk na lu mat quarante mille. arrêt de production non mais yokk bi yàgg na jamono ji arrêt de production. xam nga tey boo boo déggee arrêt de production mooy ñoom dañ doon dañuy perte. Mm. dañuy bañ perte. Mm-hmm. xam nga tey ñoom waxuñu ay taxes fi nii dañuy wax ne dafa am lu ñuy jëndi mm-hmm. bitim réew. muy charbon boobu ñu toggee courant bi. Mhm. ñu toggee euh, seen ciment bi. Mhm. emballage yeeg ñoom seen. waaw mhm. mais nee nañ ñoom li si ëpp mooy charbon boobu. maanaam presque soixante pour cent. li ma bëgg a wax foofu mooy ciment bi avant guerre Ukraine dañoo yokkoon ci ton bi cinq mille francs wax naa ko fii keroog Moreau. su ngeen duggee ci internet bi rf ak BBC ñëpp ko bindoon ñu ne ciment bi yéeg na directeur du commerce wax ko. soixante mille la woon tonne bi ñu yokkoon ci deux mille deux mille dix neuf. cinq mille francs muy soixante cinq mille sib ton nga yokk ko si man damaa jàpp ne yokk ba deux mille vingt sax yokk boobu corona amutoon mhm. euh, guerre amutoon pour ñu d'accord ci yokk boobu pare cinq mille francs xam nga yokk cinq mille francs dafa bëri nii coronavirus boobu ñaata diggante bi ñaata milliards lañ fi liggéey ci ndoddu askan wi man pour man ba ñuy yokk cinq mille francs mënoon nañoo yokk cinq cent ci tonne bi wala wala mille francs ci tonne ciment ñaata lañuy ñuy produire ci tonne nga yokk ci tonne bu nee 5000 francs loolu ñaata la si xaalis ñaata la si ay milliards léegi nag lii nga xamante ni moo xew ñoom euh, état bi Macky Sall doon na wax ay taxes mais bii tudduñu taxe nee dafa am lu ñuy jëlee bitim réew. man d'accord naa loolu ñu wax mais maanaam arrêt production bi moo waratoon a am xam nga arrêt de production kañ la waroon am. Mm-hmm. ñu la waxee na la yow bul fi yokkee sima waaye ñoom ñoo ngi yokk ciment bi yokk nañ ci fi mu nii sànq mu doon nee na. am na ku ko wax xaw ma tonne ciment. Euh, saako ciment 5000. 5000 Touba. xam nga 5000 5500. 5500 loolu tonne bi. Mm-hmm. maa ngi ci 110000 presque. Mm-hmm. maanaam te loolu doon jar 60000 ñoom yokk nañ ci 40000 francs mm-hmm. wala léegi 40000 francs xanaa guerre bi wax dëgg yàlla fii nii euh, même guerre bi bu amee. xanaa mënoo yokk yokk yokk. ba mu ëpp 40000 francs ñoom yokk nañ bi xanaa ko nañoo bëgg a rey nit ñi. loolu doon jar 60000 francs dem di ay 100000 francs 40000 man bi ma ko mujjee xool maa ngi woon si ay 80000. ñoom li ñu war a yokk yokk nañ ko beneen bi mooy ñett usines de ciment warut a a nekk ci Sénégal gi loolu la ñu waroon a xeex bu yàgg yàgg yàgg ci benn réew euh, mu mu mu fi yokk mais loolu lépp état bu Sénégal moo si moo si seetaan mm. même ministre du commerce dégg naa li wax moom dafa faral sax ñi nga xamante ni tey ñooy euh, ñii di produir ciment fii ci Sénégal. Mm. léegi nag sénégalais yi moom si seen bopp. waxuma la ay ciment yooyu ndax Macky Sall moom comme su ciment moom bu ñu arrêté tamit nit ñi duñ dee. Mm. li nga xamante ni moo a rey nit ñi mooy ab xiif te Macky Sall lijjantiwu ko. ku lijjantiwu nag li nga xamante ni eh, ah yow ndox maa ngi nii Macky Sall lijjantiwu ko nit ñaa ngi am jafe-jafe ñii naanuñu ndox mu baax facture yi cher na dund gaa ngi nii lépp a cher nit ñi ndekki añ reer ko ko fi defati ko ko fi ñemee def ci réew mi léegi nag comme Macky Sall seetaan loolu wax dëgg yàlla ku fi nekk nag naan bëgg mu xalaatal la lijjanti la ay ciment moom wax dëgg yàlla nax sa bopp la. Mhm. waaw euh, xam nga ciment bi moom. Euh, lu jar a bàyyi xel la parce que xam nga ciment moom dëgg la duñ ko lekk comme ni jii li waxee mais lu ama ama am solo xam nga mm-hmm. euh, quasiment euh, surtout doomu Sénégal comme Sénégal la ñu nekk ñoom ñëpp boo xoolee jeunes yi ak demi part yooyu képp kuy xëy quasiment sa mbëbët mooy tabaxub kër am sa dëkkuwaay. du léegi de du léegi de chaque. non loolu ba tey la woon. léegi non loo lekk la ñuy xalaat. non loolu waaw eh. amul benn jeune buy xëy di xalaat tabax jeunes yi xëy joxe dépense lekk la ñuy la loolu ay objectif intermédiaire la. mais sa waay. ku nekk. macha non ñaan ku nekk mooy am sa kër bopp. loolu moom mënoo ko fi. mais du am na nag am na ay soucis mais léegi du soucis nit ñi am na ay soucis yi nga xamante ne sa jour nga naan waaye man nu may def ba solli wala nu may def ba waajal màggal bi ah. mais yow du tee màggal baa ngi nii sa kanam mais du tee yow sa objectif wala sa rêve am kër loolu moom mënoo ko di non non non rey na rêve am kër ah, bu wax rey na Macky Sall rey na rêve am mii ku fi non sa waay non yow yaa ñu nekkoon cent mille sax nit ñi dañuy continuer di ko rêver loolu moom boobu ah yow tamit. mais mais man man man. non reef day reef dama ne la reef day day brisé <laughs> reef day dee Macky Sall dafa rey reefu jeunes yi pour ñu tabax. Mm. jeunes yi xalaatuñu tabax xalaatuñu ciment liñ <laughs> liñ tal mooy saako ceeb bu ñu yóbbu seen kër ak diwlin gu ñu yóbbu seen kër. waaw mais léegi xam nga déjà euh, li indi. arrêt wala bokk décision arrêt kii bi mm-hmm. euh, production bi mooy en fait conseil national de la consommation bi amoon ñoom dañ ci doon xaar euh, état voilà et là état jël ay mesures Euh, ci prix bi ci njëg li parce que dañu jàpp ne état daf ko bloqué alors ci diggante bi ñoom jàpp nañu am na lu ci évolué mooy euh, wàllub charbon bi ngeen di wax euh, ba ci emballage bi nee nañu ba mhm. ay produits de rechange sax dégg naa ñu koy wax ni mhm. loolu dafa yokku mhm. te mënatu ko chargé mënu en tout cas mënatu ko Euh, tenir seen chargé gi yëpp. ak mhm. njëg bi nga xamante ne euh, ci la toll. léegi nag euh, boobu ak léegi lan lañ ci waxtaan ak état ma loolu moom moo ma jaaxal mais ñun tamit dañu nekk ci réew moo xamante ne dañuy xaar ba lu ne kët na jon ñu doog a jóg rek di kii di wax ak du dellu mais c'est comme mbiru inondation ak yooyu. météo da koy wax trois mois ou quatre mois avant nawet bi ñi ñi taw rek. xaar ba mu taw ba ndox mu bëri ba kii ñu doog a commencé wax mais lii bu fekkente ne prix du yooyu yëpp mu ngi yokk yéen am ngeen conseil national la consommation am ngeen xam ñu leen représenté fan ak fenn ba ci ASCOSEN nag yeneen mais euh, trouver un terrain d'entente ngeen xool diggante bi li yëg yokk na fii ak telle période est-ce que waruñu def ni ñi xool ay pexe état xool li mu ci mën. mu ne waa léegi pour yombalal askon wi parce que ñoom ñoo tax ñu toog fi mhm. bàyyi ñuy faciliter leen lii wala bàyyi ñu defa leen lii loolu la nit ñi nag gouverner aussi c'est prévoir mhm. mais bu ñu xaar ba crise ne pépp ñu doog a jóg loolu mooy euh, problème au Sénégal mais nag lii jar na euh, bàyyi xel parce que euh, dëgg la duñ ko lekk encore une fois mais li muy laal ak lu muy impacter moo bëri xoolal ci wàllu emploi dégg naa ñoom déjà euh, seen i euh, employé seen i prestataire ak sax mm-hmm. seen i fournisseur mm-hmm. dañuy arrêté pour le moment donc mm-hmm. ñooñu mun nañu jàpp ni dañuy dem chômage lu ko jiitu depuis juin ah. daam ci la depuis juin Dangote jël décision boobu mais xoolal ñaari usines yi ñaata nit a fay liggéey ñaata prestataire a fa nekk ñaata xëy na même jëluñu leen ñuy xëy dem defi foofu journalier ñaata transporteur ñooy jël ciment yooyu di ko yóbbu ñaata ay dépôt ak i quincaillerie ñoo koy jaay ñaata maçon ñoo compter ci loolu am ay chantier ak leneen kan ñaata nit ñoo dajaloon ne damay jënd tonne ciment bi jékki-jékki mu yokk munatoo ko nga taxaw wala nga ko doon mbëbët mënatoo ko nga taxaw en fait conséquences yooyu ba pare mu ñëw nag ci effet immédiat yi nga xamante ne dina ñëw ci askan wi ñu ñu ngi jooy yokkuteeg loi yi xoolal xaaral ba lii ñëw gis nga di nga gis ku fi doon commencé chantier depuis euh, mille huit cent cinquante sax mu ne la ciment yooyu yokk mu mm-hmm. yokkal la euh, location de mara day taal léegi loolu la en fait euh, ñi parfois euh, man damaa jàpp ni euh, dañuy calculer lu ëpp bénéfice bu ëpp ñun ñu ngi nii ay Senelec ak yooyu bis bu yàlla nag ñu ñuy vanter seen i euh, nu mu tudd si sax ay bénéfice ak yooyu te pourtant askanu Sénégal ñu ngi jooy cherté courant noonu la ci li nga xamante ne moom mooy ciment bi ba léegi est-ce que wax nañu ñaata lañ doon am bénéfice ba fii ak produit du yokk hmm. waxuñ mënuñu duñu ko wax mukk léegi nag dañuy xaar bu yokkee ñu ñëwaat teg li ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla prix yi maara day taale tey dëkk bi nga xamante ne am nañu ñetti cimenterie man sax même njëgu ciment bi dama jàpp ne dafa exorbitant pour Sénégal bi nga xamante ne am na ñetti cimenterie loolu tamit je rejoins Djily parce que euh, mënuñu am loolu état toog rek di seetaan état nu muy seetaanee ci soble bi nu muy seetaanee euh, ci diwlin bi commerçant yi def leen neex mu mel ni kon mu ngi nii bouche bee mënu ci dara man loolu moo ma jaaxal euh, ak jumtukaay yi ñu ko jox yëpp loolu bi mooy mooy habitude bu ñu am ñun sénégalais mooy amuñu yërëmande suñu biir ñun dañuy profité chaque mm. fois ci ab situation nga rey sa dëkkandoor mm-hmm. wala nga rey sa mbokk xaaral màggal Touba bi ñëw paas yi Touba yi nga xamante ne xëy na bu jëree deux mille cinq cent wala trois mille ñu def ko le triple ou le mm-hmm. quintuple noonu la bu tabaski jotee noonu la gars yi di def ci njëg yi yooyu bu bayeer yi tamit déggee lii mm. même bu fekkee seen kër tabaxoon nañ ko ay eh, at a ngi nii dañuy ñëw rek neex na nii mais en fait ñi ñi loolu léegi nag yërmande googu ñun dañuy woote sax ab dëkku diine ak yooyu mais diine googu sax ama parce que même yàlla dafay tere riba ñun nag loolu yëpp amu fi et puis mu am état bi nga xamante li wax dëgg yàlla facilité wuñu ko te loolu dama jàpp ni kon euh, lu jig njaag ñoom ñooy njaag parce que mm-hmm. état gendarme lañu war a am tamit bi nga xamante ne ku deful yoon ñu rek à xam nañ xëy na état du wax dara ñu ñëw yokk kii mais boo leen yoon fii lii lay jar wala nga état en nga ut yeneen pexe boo euh, comme ni nga ko euh, en fait fii lañ toogoon doon ko waxtaanee naan Sococim euh, comment dirais-je ñetti entreprise yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di defar ciment nee nañ boo moytuwul dinañ arrêté seen production parce que dañu nekk si jafe-jafe donc menace boobu def nañ ko yaa une semaine. semaine wala quinze jours fii lañ ko doon waxtaanee ñu gis ni kon Sococim moom arrêté na production parce que dafa am ay jafe-jafe parce que peut-être produit mi utiliser dafa manqué wala dafa cher euh, comme li Abdou Khadre wax man dama jàpp ni Sénégal yàgg nañ di yokku prix te duñ ko teg fenn. maanaam ñu wax euh, guerre Ukraine wala leneen yàgg nañ di yokk ay prix yokkute boo xam ne yow yow miy jënd duñ la jox benn explication mm-hmm. boo oowoon sax commercant yi ne lan moo tax ngeen yokk lii wala sax boutiquier bi lay jaay jaay sa koñ euh, lan moo tax ñu yokk du la tontu sax loo xam ne yow mën nga ko accepter donc yàgg nañ euh, di yokk prix yi sans pour autant guerre Ukraine am sans pour autant ñu nekk ci crise bi liée à la Covid-19 et tout comme ñii niñ koy évoqué donc yokk bi moom am na actuellement nag comme que ñoom ne yokk nañ yokk ba actuellement ñëpp xam ni sax ciment dafa yokk comme Abdou Khadre ni mu ko waxee euh, ñoom ñu ne dañuy tëj seen pro euh, dañu arrêté production parce que mënatuñu dem euh, donc fi ñu toll nii dañuy xaar même bu ciment di amaat dina nekk prix boo xam ne ñu bëri duñ ko mën a mm. dékku parce que comme niñ ko waxee kuy liggéey ku ne mm. sa jeunesse peut-être di nga def benn épargne ut benn terrain boo jënd parce que bëggoo dee si locataire parce que mm. location salarié moo ko mën a assurer di liggéey ñu lay fay boo demee ba peut-être am 60 ans wala 50 ans bëgg nga am foo xam ne di nga fa nekk ak sa njaboot. Hmm. donc loo si si si projet euh, naturellement dafa bokk si projet nit koo hmm. gis muy liggéey. Hmm. Euh, dina dund dina mais dina ne xaaral ma jël euh, benn tuuti koppar def ko à côté comme ça d'ici 5 ans dix ans quinze ans ma am terrain bu ma jënd am fu ma defar un toit avant may dem retraite comme ça. parce que location dafa métti. Mm-hmm. mais comme niñ koy waxee man dama ne la euh, Sénégal dañu nekk ci situation économique bu doy waar te autorités yi nanguwuñu wax ak ñun exactement qu'est-ce qui se passe parce que ciment la ñu wax euh, bala ngay tal sax naan da ngay jënd ciment di tabax ni ko Abdou Khadre waxee xanaa Sylvie xanaa gisoo actuellement euh, sénégalais li ñuy jooy. quotidiennement mm-hmm. maanaam dund bi moo cher maanaam ndékki añ reer maanaam lekk lekk moo cher boo cher boo xamante ni Sénégal instant bi kenn mënul comprendre te tamit am na côté yoo xam ne mënuñ ne euh, ger bee ko waral donc yow avant ngay tal sax naan dangay dem di mettre de l'argent à côté di épargne à côté peut-être pour benn banque lebal la nga tabax xanaa di nga sa salaire bi yor sax mënul la ndékki añ reer mm-hmm. mënoo si fay location facture ndox yi chair na facture courant yi chair na tout est excessivement euh, cher au Sénégal donc kooku naka lay talee sax banaan day dajale bay jënd ay tonnes ciment yoo xamante ni dañ ko doubler wala ñu tripler ko mm-hmm. donc dañu nekk ci euh, situation crise économique bu métti fii mm-hmm. Sénégal nous on est en train de vivre une euh, crise économique boo xam ni man de ba ma juddoo ba léegi dëkk bu méttee nii man maa mm-hmm. maa ngi koy doog a sentir ba ma mm-hmm. nekkee juddoo ba léegi au Sénégal maanaam situation bii ñuy dund man dama ne euh, président Sall lan lay xaar pour génn wax ak askan wi parce que askan wi dañoo sonn moom la ñëpp di waxtaanee yokku tey donc bala ngay tal ay ciment nga tal lekk naan facture courant yi cher na noonu mais ima imagine toi euh, usine bu mel ni Sococim tëj ña fa doon liggéeyee loolu li muy juraat encore répercussion bi chômage bi ainsi de suite mhm. économiquement lu mu ñu encore lu mu ñu fu mu ñuy dellawaat si ginnaaw yow si moment bu ñu wax dañuy war a yokk usines yi jeunes yi am liggéey ainsi de suite mhm. yokk industrie jeunes yi am xëy parce que dëkk bi amul liggéey amul ainsi de suite donc ñu naan ay usines de ciment euh, ñu ngi tëj ñoom joxe nañ seen raison mais man jàpp naa ñoom bu ñu demee ba arrêté seen production euh, du si ay euh, peut-être suñ mënoon doxal dañuy continuer doxal ça veut que ñoom seen bopp dañu am ay problème problème mais tey jii yi dañoo bëgg comprendre lan mooy cause bi exactement tey jii ñi ñu dénk réew mi dañoo war a génn wax ak ñun ñu xam qu'est-ce qui se passe lan moo tax socc bi nga doon jëndee euh, juróom sax maintenant cinquante francs lañ la koy jaayee. hausse boobu mooy lan ndox yokku tout lépp a yokk donc buñ nee la ciment kay yokk na wala usines yi yiy defar ciment dem nañ ba ñoom dañu am ay problème économique dañu arrêté seen transformation parce que produit yi ñu utiliser pour defar ko dafa yokk te ñoom ñi ngi yokk ciment bi te compte te gisuñ seen bopp ba ñu arrêté nga xam ne y a problème te mm-hmm. yeneen usines yu dul Sococim wala leneen ak leneen dinañu tëj wala ñu arrêté euh, dañu nekk ci période de crise bu métti métti au Sénégal mm-hmm. loolu laa lay wax sànq moo tax euh, futilité yu a dépassé bu ñuy mm. taxawal ay HCCT ay yeneen <laughs> les sénégalais souffrent euh, tey jii njiitu réew mi war na génn wax ak ñun d'accord voilà ñu jàll waaw non euh, Claire euh, yow kii bala ngaa jàll may ma tuuti sànq tabax non dama la <laughs> sànq Jacques dama la wax benn affaire ma ne la gis nga gis nga maanaam rêver dafa nekk loo xam ne dafa baax ci nit muy xalaat ne ëllëg dinaa am kër dinaa am nangam dinaa am njaboot dinaa am nangam xam nga loolu day rêve la mais loolu la Macky Sall brisé dafa rey dafa rey espoir gis nga li gën a bon ci àdduna mooy fexe ba say doomu réew. du ñu du ñu am askan wi ñoo perte espoir. ci ci Macky Sall xam nga espoir dafa baax. Mhm. gis nga nit bu espoir jugee ci moom. parce que dara desutu fa. bu rêve jógee ci moom dara desutu fa. Macky moo ñu mayut ñuy rêve ay kër yu rafet ak ay oto yu rafet <laughs> ndax xamul lu tax mayuñu ko ba sa xel mi bala muy dem ci kër gu rafet. Mm. xanaa au moins mu dem ci liy jar liy jar fukki dërëm ak liy jar ñaar fukk. même bu daan tey liy jar ñaar fukk man yokk na ko ba téeméer au moins nga yor xaalis sax sa loxo. Hmm. nga ne tantan non seulement yokk na ko ba pare ñun yoruñu xaalis. Hmm. kooku ban jeune moo fi ñemee taxaw di am fit xëy yeewu. Hmm. di xalaat ay immeuble ah kay ñu na la waaw xam nga ñàkk ci pexe ak bañ koo xalaat wuute na loolu laa lay wax gis nga loo gis ci àdduna dafa am ay objectif intermédiaire waaye teewul da ngay jënd da jënd crédit jënd ndekki est-ce que sa soxla foofu la non yaa ngi mëbët leneen mais yooyu dafa nekk yi nga xam ne war na ko def d'accord gis nga xel dafa am luy occuper xel hmm. ñun suñu xel yi dafa am lu ko occuper nan la ñuy def ba ndekk añ reer. taxul nga xalaat nga bañ a xalaat non mais. am nga ah, xel dafa mais xam nga ñun su dama la ñun suñ xel yi looloo ko occupé presque. dama ne la loolu presque moo occupé loolu wax dëgg yàlla. lii bu ñuy napp yaa ngi ci sànce bu yëpp bàyyil sa morom yi xalaat ay kër ak yooyu. Ah, bu la neexee xalaat yi muy waxee moom mooy. maanaam sénégalais actuellement dund bi cher na cher boo xam ne taluñ sax naan ay lu may épargne ba tabax kër. épargne kenn loolu la loolu si boppam sa kenn mënatu ko def amuñu possibilité épargne mais xalaatuñu épargne moom loolu mënuñu ko d'accord yow fii yow fii non amuñu possibilité par exemple man bu sama train de vie euh, yemee ci sama salaire képp bon noonu laay dundee mais du tee man ma xalaat kër wala du tee ma xalaat suba def yow yow rarement nga fiy dégg kuy wut weccet ñëpp ay weccet la ñor euh, jàllal yow maanaam <laughs> si ma ne la demal ci boutique bi ay da ngay gis borom ay té ñii téeméer lañ koy jox ñii deux cent lañ koy jox ñii mille francs lañ koy jox rarement ngay de non sérieux dem leen ci dem leen constat may dox ci deuxième bi <laughs> mënuñu des ci tabax bi inondation aéroport saint euh, euh, mu ngi koy wax ci comptam Twitter euh, ñu ngi ko inauguré bu yàggul le 14 juillet bi ñu génn aéroport Ousmane Masseck Ndiaye dénkoon ko ab benn société tchèque ñu réhabilité ko autour de 23 milliards de francs CFA ñu jàpp ni nag euh, fu ñu dugal koppar bu toll noonu te aéroport euh, norme yi nga xam ne ci lañ koy defaree warul mën a am li nga xam ne moo di inondation moro voilà mu nekkaat beneen euh, problème parce que bi ñu ay inauguré plutôt aéroport bi gis nga ni yàggul dara te bi ñu ko inauguré euh, gars yu bëri ñu ngi doon kaas naan milliards yu bëri yi nga xam ne nee nañ def nañ ko foofu maanaam reflété wul euh, si aéroport bi nga xam ne def na defar nañ ko man parfois dama ne euh, ñi ñuy ñiy gagné chantier yu Sénégal ça pose problème est-ce que ku gagné marché suivi dina am est-ce que koppar dinañ def suivi quoi xam ne yow boo nee def naa fii cent milliards. ñu xam ni cent milliards yooyu dem na si aéroport bi hmm. waaw wala déet est-ce que loolu am na Sénégal audit yi suivi bi euh, marché yaa ma neex neexi wala euh, jox nit marché ba pare lam ca war a def defu ko si est-ce que hmm. état bi tamit souvent loolu mi ngi koy def wala sam hmm. tamit est-ce que état bi la koppar ya muy wax def naa ko si telle infrastructure est-ce que yooyu def na ko si ainsi de suite est-ce que nee cent milliards du cinquante milliards yi ñoom dañ koy damm seen poche def ko si parce que lii euh, problème mu qualité moom mooy ñëw naka la inauguré aéroport euh, biñ ko inauguré ak léegi deful sax un mois est-ce que amat na un mois euh, ñu ne dafa dafa dafa ino juste début campagne waaw un mois deux mois 14 juillet mais c'est catastrophique mm. si ban réew la ñu nekk danga naan moom laa la wax fii keroog bi ma ne la réew mi dara doxul benn secteur maanaam benn secteur jaaru fi yoon A ba Z mm-hmm. te tamit mënuñu imaginer eh, jël ay milliards di ko investir si loo xam ni askan wi après duñ si gis seen bopp wala buñ leen waxee euh, mbir mi def nañ si cinquante milliards ñoom du leen ko jaral mm-hmm. inondation bi pour lan ña ko doon tabax mais ino mu fees dell ak ndox aéroport bi ça pose problème Abdou Mbaye li mu wax dëgg la nañu càmbar koppar yi ñu wax ni fa est-ce que si aéroport bi la dugg waa wala déet loolu c'est normal c'est naturel mm-hmm. voilà donc yaakaar naa ne Abdou Mbaye li mu demandé c'est tout à fait normal parce que un mois deux mois ñu inauguré aéroport actuellement mu fees waaw mu fees dell ak ndox ça que war nañ lijjanti xaalis bañ fa bañ wax ne fa lañ ko def est-ce que def nañ ko fa réellement waawala wala waaw aéroport euh, Ousmane Masseck Ndiaye la ñu wax euh, parce que <laughs> euh, déjà. Mm. xam naa njiitu réew dina ci mer. parce que ko rappelé sànq ci ndorteelub campagne législative yi la ko dem defi ñëpp di naan ma ngay campagne ma ngay campagne waru ci bokk faf nag <laughs> ndaat géej googu mu daal di fay nërmeelu moom ak <laughs> euh, ki nga xamante ne mooy goroja mais euh, lu jëm nag ci chantier yi moom loolu warul bett kenn yow pont Kër Massar bi ba ñu ko inauguré hmm. <laughs> est defu fa trois jours xaw ma quatre jours rek hmm. mu taa mu mel ni lan ak ñi dëkk ci ga lu ñuy jooy tamit ni ay coono hmm. gis nañ ko ci pont Yoff bi ak feneen ak feneen mais wàllub chantier moom dañ koy wax waxati ko euh, ñaata ay stade fii la ñu fi rénové mu def quelques mois mu yàquwaat. Mhm. parfois ñu jëlaat même entreprise bu ñu joxoon ay milliards. mu delluwaat rénové at ko mu ñëwaat yàqu. yow Demba Diop bi ñu tëj ñaata yoon lañ ko rénové stade Léopold Sédar Senghor ñaata yoon. Lat Dior bu mhm. Thiès Aline Sitoé Diatta mhm. nu mu tudd Amadou Barry ak yeneen ak yeneen mais dafa bëri tellement que mënuñu ko euh, compter même aéroport bu Ziguinchor. ba ñu koy rénové yàggul après gisoon nañu xeetu jafe yi nga xamante ne amee nañ ko foofu yan anam la ñuy joxee marché yi ñaata lañ ci def ni boobu est-ce que état sax euh, nan lay joxe marché yi ak ban garantie euh, ci chantier bi la am. par mhm. rapport ak ki nga xamante ne moom la ko sekkal moom lay defar parce que yu ci bëri euh, dëgg la affaire copinage a ngi nii ak mu ngi fi marché gré à gré yooyu dañ koy ŋàññe ba tey mais loolu yëpp moom moo jar a wax puis ñu bëri fii Sénégal la ñu nekk xam nañu parfois ni ay ministère ak ñoom seen di joxe ay marché ñëwal euh, def coup bi après man ma am ci temps yow nga mais sinon euh, xoolal yenn ko yi affaire terre ak yooyu ñun ñi ba léegi coup bi boo ko waxee ñenn ñi nga xamante ne dëkkuñu sax Sénégal dañuy jaaxle euh, dakaar Arena bi nga xamante ne copie collé Kigali Arena la mais différence bi c'est plus de cent milliards boo xoolee nuñ ko tabaxee fan lañ ko war a mën a teg. est-ce que ciment fii par exemple moo gën a cher euh, Rwanda non pourtant ak yeneen neneen ba ci main hmm. mais doo xam fan la ñu teg ñun ku yi nga xamante ne moom la ñuy euh, utiliser léegi nag euh, ci wàllu jafe-jafe wala boo ko garanteeb liggéey moom ci Sénégal ci la ñu dëkk hmm. building administratif dañ ko fi tabax yàggul gis nañu jafe-jafe bi fa kii ba ñuy waxaat fii jàmbaaramutuma entrepreneur bi nga xamante ne kon moom moo gagné marché bi jarul tuddaat turam ndax hmm. Sénégal la tamit lii moo tax ñuy xool ndaxam sax na jox au euh, secteur privé bi fii parce que parfois ñoom ngay jox ñu tardel la sa liggéey euh, ba pare laaj la xaalis bu takku ba pare du ci am benn garantie waaye loolu yëpp dama jàpp ni état kon moo leen ko yóbbee li am ba am li am euh, aéroport bu Saint-Louis moom ñaaw na niñ ko inauguré kon yàggul xam naa dina tax nag gars yi gën koo merewaat <laughs> élection yi di ñëw moom <laughs> mu gën fa nermelu Abdourahmane waaw xam nga nguur gi moom wax dëgg yàlla ñii moom non seulement bu waa passé sax jubadi gi nga xam ne moom lañ leen di tuumaal maanaam ñàkk leeraange euh, ci seen mbir maanaam li ump sénégalais yi ci réew mi maanaam moo bëri. Mhm. te warul leen woon a ump ndax xaalis bi ñu koy defee wala bi ñu siy liggéeyee du xaalis boo xam ne. Euh, dañ nga ñoom ñoo ñoom seen xaalis la xaalisu mhm. askan wi la te damaa yaakaar ne nit xaalisu askan wi lépp loo ciy def da nga kaa war dafa war a leer dafa am yoo xam ne nit ñi peut-être nañ ko def ay jamono Abdou Diouf ak ay Senghor ak ay Ablaye Wade buy dox da dox di ànd ak moom mhm. fii naa leen leen Euh, tey ñëpp képp kuy fayeeku ci gouvernement bi si xaalisu réew mi askan bi dañoo war a xam ñaata ngay fayeeku yan contrat lan moo nekk ci contrat yi clause yi lan la ñan ñooy intermédiaires yi mm-hmm. nan lañ ko nan lañ ko tegee euh, euh, aéroport bi nan lañ monte projet bi kan moo ko gañee ndax programme bi yeesal aéroport yi programme bi ndax dañoo teg ñoom 2018 ak programme boo xam ne mhm. pour dañuy yeesalaat aéroport yi pour mu mën a méngoo ak euh, ak adduna bi aéroport yëpp ñu jël presque vingt quatre milliards def ko ci euh, def ko ci loolu si bi yeesalaat yow loolu wax dëgg yàlla na xanaa diggante boobaak léegi te li njëkk xam nga ne kon ñoom bu fi ëllëgee bu fi seen BRT bi euh, inondé moom bu mbet kenn ndax tey tabax li si ëpp solo bokk na ci nga sóoraale assainissement bi. ndax yow assainissement mais boo ko sóoraale wut ci aéroport mais aéroport xam nga ne bëggut a inondé dafa am ñoo xam inondation jig na leen waaye jigul nag ab aéroport nag. naam sax ay inondation mën naa ma waa léegi waa loolu seeg loolu mooy problème bi nag xam nga nag aéroport <laughs> euh, wax dëgg yàlla bu ñu demee nag ba ay xam nga <laughs> loolu rek loolu rek fii nii maanaam ñoom wutee na maanaam ñoom secteur boo laal gis fa ak lu lëndëm gis fa liggéey boo xamante ni jaarul yoon. te si alalu askan dañ ko war a auditer eh, nag. man dama gëj dégg sax ak état bi. appel d'offre. waaw kañ nga gëj a dégg chantier réy nii ñu naan la appel d'offre nit ñi concourir ba pare euh, ñu wax la kii la ñu jël. et non l'autre parce que parce que parce que. loolu gën nga xam nga loolu xam nga nit ko jub. xam nga nit ko jub mooy def loolu. gis nga ñoom. wallaahi buñ juboon. wala ñu respecté sénégalais yi. lu bari du ump sénégalais yi. ndax dama jàpp ne ki nekk ci privé bi moom am na sañ-sañ. mooy fay ay employé su ko neexee ne man duma wax li may fay samay employé waaye yow mi nga xam ne ci alalu réew mi lañ lay fay. Mhm. wax dëgg yàlla dañoo war a xam alalu réew moom xanaa xamu kes noire sax dañ ko fay waroon a jëlee maanaam ak ndëngate foofu la commencé. te ñun wax dëgg yàlla loolu man pour man gis nga sénégalais li ñu war a kaas lépp kaasuñu ko ak li ñu war a ñaxtu lépp léegi nag aéroport bi même sur le plan économique sax day day day yàq lu bëree bëri dèjà yow crédibilité aéroport boobu sax maanaam yàqu na kan moo fa ñemee kan moo fa ñemee wàccati du aéroport boobu même Macky su bëggoon jël aéroport boobu dem ba mel ni AIBD sax moom na dafa waroon sax di wàcc di wàcc Saint-Louis Macky Sall maanaam tey di moom jël avion moom di wàcc seen louis encouragé nit ñi ñuy wàcc Saint-Louis mais xam nga tey kuy def lu mel noonu maanaam pour pour pour pour pour décentraliser mbir yi laa bëgg a wax. ba nga xam ne tey du benn aéroport rek mooy dund. fi ne nii presque AIBD kese mooy dund pour aéroport yi dund Macky Sall moo waroon def loolu mais du ko def ndax su ko waroon da ko naroon def jet privé bi xaw ma ab avion lan la yor. kon dina ko wàcc jël di dugg ci Air Sénégal Macky la war a dugg ci Air wala Sénégal ba pare ñun moom moom mu bëgg ñun. duñu ñu ah, dafa ma avion nag. non dama non xam nga Jacques. <laughs> c'est que avion présidentiel xanaa xamoo méthode yooyu lañ fa war a jëlee. Mm-hmm. ay affaire euh, ay affaire euh, avion présidentiel. waroon naa mën a dugg ci Air Sénégal xam nga lan la si loolu pour lan la. Mm-hmm. au moins gis nga loolu mën naa defal promotion boo xam ne. mais dugg na Air Sénégal jamano yu ah, avion ba la kii dugg na ci tukki da see waroon di ah, dañuy jël avion ah, beneen bi mooy Saint-Louis Guèye ñoom dañoo war di wàcc si dama la ñoom dañoo war di wàcc si aéroport yooyu. Hmm. comprendre tey par exemple ngi meloon ne tey équipe nationale bu Sénégal am ay terrain yu bëri hmm. mais doo fubalee terrain maître Ablaye Wade rek mais tey par exemple tey équipe nationale mën naa dem Mbour mu fubalee Mbour tey ëllëg mu lee Kaolack su ko defee loolu day dundal ville bi mu nekk day dundal gox bi mu nekk mm-hmm. mais fii nii tey nit ñi sax dañuy fàtt ne aéroport am na Saint-Louis léegi nag ñoom bu dee nag ah, yow demoo Saint-Louis ñi fa dëkk xam nañu affaire yaa ngi wàcc ak yéeg Jacques li ngay tudd AIBD gii bokk ci non non mais bokkul nag AIBD yow tamit bokkul ak aéroport région xam nga tey par exemple tey gis nga dafa am benn waay boo xam ne dafa yaakaar naa xaw ma si rajo bi la woote woon xaw ma dama déggul mu wax lu am solo mu ne dafa am ko xam dafa dëkk France mhm. su ma jumul daal si benn euh, région xaw ma Marseille la wax xaw ma am na benn kii bu mu cité mu ne kooku dafa dëkk ay pendant des années xaw ma nee na benn yoon la mos a dem Paris ñu laaj ko mu ne man li ma soxla Paris lépp am na fii xam nga loolu lan la loolu. mais tout en reconnaissant que aéroport Charles de Gaulle. mënoon am bokk même affluence bi ak yeneen ak envergure ak yeneen yi nekk Marseille gi nga xamoo tey loolu par exemple tey dama la wax réew euh, tey boo demoon tey fu mel ni Espagne ay Barcelone ay Real Madrid yeneen ville dama la bëgg xam la laal bëgg expliquer foofu mooy tànk ñi nekk Dakar ci capital bi ñeewuñu ñu nekk Louga Sénégal avancé gu. non yàqu na daal waxal baaxul baaxul et puis dañu war a fexe ba xool ki ko defar ñu audité ko mu ñëw laaj leneen ñu lan moo tax mu defar ko même pas deux mois yëf yi di xam nga dama la bëggoon jox non non dama la bëggoon jox exemple Jacques hmm. xam nga tey dama la bëgg a wax na la si affaire aé aéroport bi laa nekk mais dama la bëgg a jox exemple ma ne la tant que ñi nekk ci Dakar ñeewuñu ñu nekk Kaolack wala ñeewuñu ñu nekk Diourbel wala Kolda wala Ziguinchor Sénégal avancé gul gis nga réew boo koy avancé da nga koy décentraliser gis nga xanaa xamu tey gis nga inondation bi ak location ak ak ak embouteillage tant que lii ma la wax amut mënut a saafara ci Sénégal képp ku la ko wax dalay nax tant que demuñu ba waa ba ba nit ñu ba nit jógee Jurbel dem di liggéeyi Kaolack wala nit jógee Kaolack dem liggéeyi ci Kolda maanaam ñu décentraliser région yi c'est ça projet bi la fekk ñu tabax boobu rek aéroport projet bi mooy décentraliser coow li mooy ni ñu ko defaree baaxul seen anam lañ ko joxee ñaata ko fa la ñu def loolu kay moo jara liggéeyante fu mu toll nii non lu Abdou Khadre wax dëgg la parce que par exemple tey jii man gis naa nguur gu ñëw day jël ay milliards def ko si Dakar kese on a l'impression Sénégal égal Dakar lépp Dakar la concentré wu waaw quatorze régions Sylvie quatorze régions nga ah. am ku ñëw jël ay milliards xëpp ko Dakar te Dakar a ngi nii mënul normal. c'est ça le problème mais Sénégal du Dakar kese. Mm-hmm. Dakar benn la li ana yeneen quatorze régions yi. Mm-hmm. dem fa waaw. sa pose problème loolu la jii di wax lan moo tax maanaam tey jii Kolda Palais mënu fa am. non non non attendez bu bu bu leen jaxase thème yi. en fait dañuy wax ci chantier yi nga xamante ne. en fait non seulement. liñ ko fa li ñu war dugal ni xaalis cher na mais lu tax du baax waxuma la nag wàllu décentralisation parce que wàllu loolu yàgg nañ ko fi wax fii hmm. Sénégal tout se ah, résume à Dakar mais lu baax lu non loolu alors en fait mais lii déjà non lii déjà idée ci bokk na ci ay projet décentralisation. Hmm. parce que am na région yu amul euh, aéroport. non mais na région yu amul donc bu demee ba am déjà benn jéego la man jàpp naa ni jéego la. pour tabax ko fa mais nag na nekk lu baax ba pare nga def ko ci temps yu raisonnable mhm. koppar bi nga xamante ne na ko ci jar mhm. parce que tamit doo defar li nga xamante ne même pas deux mois mhm. mu mel ni mu mel ba image yi ñaaw loolu mooy coow li mais waxuma koy problème bi léegi ci inondation yi la ñuy des toujours ak euh, ñi nga xam ne ñi ngi décédé par électrocution am na yeneen ñaari mort fan yee ñu génn taw yu métti yooyu la amoon na euh, ñaari xale yi nga xam ne jotoon na ñàkk seen bakkan euh, ñi courant moo leen mas waaye ñaan ñi euh, ndoxu bi nekk seen kër dañ doon évacuer ak moto pompe yi ba affaire bi daal di leen maas ci noonu la ñàkk seen bakkan ñoom ñaar dëkk ca bu nekk commune bu Yëmbal Sud nekk ca département bu Kër Massar. Euh, ba tax ñoom sax ñoom waa Boune ñoom yëkkatiwu nañ nee nañ plan ORSEC bi ñoom foofu ci département ba euh, seen commune du moins euh, yëguñu ko parce que ndox yaa ngi ci biir kër yi ndox yaa ngi un peu partout fépp foofu ci dëkk bi tey ñi nga xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan aussi ci électrocution mi ngi bëgg a bëri ren dafa mel ni sax dafa jéggi dayoo Jacques. waaw xam nga hivernage moom ci Sénégal ça rime avec danger en général. mooy euh, effondrement batiment ci nga kay gën a dégg accident de circulation gën a yokk électrocution yi tamit euh, mu ngi mel ni kon tuleeg Mali ba yëf yi dooree ak léegi en tout cas week bi passé ak léegi ñi ci faatu bëri na rawatina cas bi nga wax démb surtout ñaari frère ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan seen bakkan en même temps mu nekk euh, lu métti lu tiis loolu nag li koy waral nag bëri na mooy déjà ndakaaru dëkkuwaay bi et ñàkk nañu yàgg nañoo wax ci kon ñàkk respecter norme construction ba ci sax wàll euh, électricité bi ci boppam nu ñu koy installer ak yooyu mais mun nañ ci yokk sax euh, insouciance bi nga xamante ne parfois askan wi dañ koy am mm-hmm. euh, bu taw bi tawee da ngay gis parfois ñu ne la non bu taw bi tawee da ngay éviter lii ak lii. voilà éviter ay poteaux. parce que ñun fii nu ñu amee waa yenn fil électrique yi parfois sax da nga koy gis ci yenn koñ yi. Mm-hmm. waxuma la sax euh, noor mais jamonoy nawet woorul sax nga jege ko ba di ko kii mais nit ñi da ngay gis sax muy taw ay xale di ci football wala di ci foo di ko laal euh, di ci sax jéem a yëg parfois nga ne ñii. est-ce que am nañu euh, conscience li leen mën a dab léegi nag euh, ci wàllu wàllub euh, ñi nga xamante ñoo nekkee ci mbënd bi parce que ñooñu dañuy doon xeex leneen mm-hmm. ba natt boobu dab leen ci. Mm-hmm. Euh, boobu ba tey plan Orsec bi dañ koy xool parce que nee nañu sax déjà eggul ci yenn quartiers yi. Mm. dégg naa Kër Massar keroog même maire bi di wax ñoom bu ñu leen fàtte tamit ci plan Orsec yi. parce que mm. ba léegi askan wi ak ñi dëkk ci kër yi foofu euh, ñu ngi euh, dund ci mbënn mi te gisaguñu loolu ñuy wax plan Orsec mais ci wàllu conscientisation conscientisation bi nga xamante ne tamit état war na ko ci def parce que bu élection amee wala leneen nu ñuy defee publicité wala ubbiteeg mm. benn ab stade Abdoulaye Wade nga xam ne un mois ñu ngi defee publicité sensibilisation pour mm-hmm. nit ñi dem pour pourquoi bu nawet jotee tamit mm-hmm. du ñu def genre sport yooyu di sensibiliser lii ngeen war a éviter ci mhm. jamono nawet nii ngeen war a éviter buy taw mhm. lii la nappkat bi war a éviter buy ngelaw wala buy taw pour dem géej mu def lii mu fagatu lii mais loolu doo ko doo ko gis en réalité euh, Sénégal mu nekk li ma jaaxal lool nit ñi nag war nañ tamit euh, mhm. bañ a surtout di xaar loolu ci état mais ñu bàyyi xel parce que tout le monde sait que euh, l'eau et le courant ménage loolu moom dafa leer léegi nag danga koy invité boo gisee ngay inondé ci sa kër mu xaw a egg yenn niveau yi soit tu coupes le courant nga mën a def ci yenn liggéey. wala nga def mais pompes yi ñuy utiliser Jacques parfois. non mais c'est euh, dangereux doon yoo xam ne yu nekk en bon état la dañ koy def defaraat daal. waaw loolu laa la wax. voilà et puis comme ni ma ko waxee ndox ak courant ñëpp xam nañ ko mhm. mais xoolal loolu. man ma dëkk ci ndox moo gën ma tey la sama bakkan mm-hmm. ma dëkk fi nga xam ne xëy na sax damay toog ndox yi di pëñ euh, di di paccax ci ci ci tànk di paccax ci mm-hmm. ndox bi mais moo gën ngay jouer avec le feu mm-hmm. parce que xam nañu courant ak ndox moom euh, lu muy jur maara day taale parfois nag manque de mois ak yooyu dina ci am mais état war na ci taxaw mais surtout nit ñi di bàyyi xel que man euh, bu ndox xasee dugg sama kër ba yegg ci yenn niveau yi war naa éviter lii war naa couper sama courant war naa lii s'il le faut sax Sénégal euh, Sénégal jël ay matukaayam ci loolu parce que couper na courant ci ay moment yi nga xamante ne yu am solo la mm. waxuma la bi nga xamante ne taw na ba mu xam ni ndox am na xoolal taw weekend bi ak ndox bi fu mu tolloon daanaka quartier yëpp amoon na ndox mm-hmm. jamono yooyu sax mënoon naa ne ñi waroon nañ mën a couper courant le temps que mm-hmm. euh, plan Orsec ak na ñu kii wala ñu wàññi yenn yi balaa courant bi di ñëw mais yooyu yëpp ay danger la yi nga xamante ne euh, nit ñi ñu ci bëri bokk duñ ci bàyyi et même état defu ci luy war. Mhm. Abdou Khadre. waaw xam nga nag euh, nit ñi moom wax dëgg yàlla instant bi euh, Sénégal yi nag dañoo nekk euh, ay baayo maam dañ leen a seetaan ci lépp ndax tey état bi bu defoon li war a def ñooñu nekk yëmbal état bi dina dem ngàcc seen kër yi ndax ñoom ñoo ne plan Orsec ñoo ko wax di plan Orsec. Mhm. pour dem wallu leen secourir secourir leen. Mhm. léegi yow nga bàyyi fi waa yëmbal. ah <laughs> même zone de captage bi ndox maa ngi fi xanaa tey laay xuus si ndox. ndax man fi may jaar mënoo ñàkk ñàkk ko sim ndax oto yi sax duñ fa jaar. Mm-hmm. Eh, dafa yàqu na spécial ay mbedd yàqu maanaam. Mm-hmm. am na taw yu njëkk ya ba léegi am na mbedd yoo xam ne zone de garage si. Mm-hmm. yaa ngi dégg léegi loolu fi ne fan la tege léegi boutique yi nekkoon foofu waa kër ga ñoom di yooy ak yëpp di leen rey. léegi ña ñooñu xam nga tey ndox mu nekk ci mbedd mi si mbedd mi la nekk mën ngaa teggeek euh, nangam sàngam mais ndox moo xam ne ci biir kër yi la nekk mais si biir néeg yi gis nga mbënd ku ko xamut ku ko mét ku maanaam nit ñi tant que inondé woo mm-hmm. munoo xam metti woo mm-hmm. dem ba say bagage sa néeg bi sa doom yi sa ñëpp di tëmb mm-hmm. ci biir ndox mi mais léegi metti woowu léegi état seetaan la foofu léegi lan ngeen bëgg léegi ñoom duñ ko jéem a génneel seen bopp dañ koy jéem a génneel seen bopp léegi nag ba lii ba lii am am ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom sotti leen yërmande léegi tey Senelec ñoom euh, xam nga tey bu euh, dara amee si hôpital ñu ne ministre bi kaay syndicat yi tàmbali grève ñu ne médecin yi nangam léeg-léeg euh, yokk gi ñu ne ana agent de du ministère du commerce léegi Sénélec ñoom dans tout ça ñoom tey est-ce que amuñu ay agent yoo xam ne war nañoo def comme ministère de l'urbanisme di wër ci ndakaaru ci Sénégal gi yëpp xool kër yi nga xamante ni tey waaj nañoo daan wala waruñoo daan lan urbanisme koy def ñoom defu ñoom defuñu ko dama la wax noonu da nga ko war def mais defuñu ko mm-hmm. dama la jox exemple ci urbanisme jox la exemple ci ay service d'hygiène mm-hmm. ñuy def lu mel noonu mais Sénélec dañoo am ay agent agent Sénélec yi waruñoo yem kese ci dem xool ay compteur ndax léegi sax xoolatuñuy compteur ndax léegi relevé presque ñu bari defanuñ kon yeneen compteur yi la kon léegi kon seen effectif bi léegi lan lay jëriñ war nañoo dem ci marché yi ci kër yi xool ba xam installation bi baax na wala baaxul waa léegi lan moo tax daal léegi installation bu amee ñoom ña fa wàccee ñoom ña fa wàccee courant dañ sam pas de responsabilité Senelec ndax tey bu ñu ñëwee fekk électricien bi euh, ndax sax ñoom am nañu benn euh, benn seen benn partenaire boo xam ne Senelec lu bees loolu lañ def mooy ab entreprise boo xam ne boo installé ba pare ñooy ñëw saytu ba xam baax na wala baaxul nga fay xaw ma leen dix mille francs mm-hmm. Senelec ñoom boo installé pare ba la laa wàcceel courant ñoom ñoo war a xool installation bi baax na wala installation bi baaxut mais léegi ñoom seen yoon nekk ci loolu dañuy ñëw rek wàcceel la courant xamuñ ne li ñuy wàccee tension bi bëri na wala bëriwul. Mm-hmm. dugguñu si biir kër yi dañoo war a jël ay ay sanctions xam nga tey euh, ki jënd otoom dañ naan la par force da ngay takk ceinture mais yow yaa defar sa kër yaa installé sa courant mais par force. danga def installation bu baax. Hmm. Hmm. niñ naa la par force di nga takk ceinture da bay dawal wala ñaa par force di nga di nga def installation bu baax mais loolu boo xoolee presque kenn nekku ci léegi nag askan wi moom fi ñu toll nii liñ leen bàyyee moo bëri non seulement bàyyee nañ ñii dañ dee si mbënd mi ah ñii vraiment xiif euh, xiif ma ngi leen di rey njëg yi. yéeg yokk na xam nga chaque euh, wax damay bañ guddal mais am na lu mu leen nett li sànq ci ci rédaction yi mais mooy ki benn taximan Hmm. mais mais Sylvie kooku euh, soxnaam moo ko woo démb mais dafa énervé soxna si di ko wax waxu ñëw taximaan bi mer dal si kawam pour pour non pour vous dire di di jàmbat dëkk bi si boppam Jacques moo met <laughs> kii euh, euh, par rapport ak inondation yi ak euh, courant bi ak tamit ñi siy faatu ci période bi mm. li maanaam mbënn mi li muy def looloo ci gën a ndaw mais man damay wax premièrement mooy keroog bi comment dirais-je ministre de l'intérieur génn def un bilan positif ci plan Orsec dama ne mais kii fan la nekk exactement keroog rek woo naa maire bu Kër Massar je pense bien di ko laaj ci plan Orsec bi Kër Massar te ku nekk xam na ni Kër Massar ni ko inondation yi sonalee mhm. actuellement jafe-jafe yi ñuy dund seen kër yi fees dell ak ndox ak mbedd yi mhm. moom nee na maanaam gisaguñ maanaam <laughs> plan ORSEC ñoom dañ koy dégg nii rek c'est le maire qui m'a Adama Sarr mu ne ñoom dañuy dégg nii rek plan ORSEC si télé beeg rajo bi mais yegg seegul ñoom fa ñu nekk ça pose problème mhm. naka ngay déclencher plan Orsec euh, de, euh, quelque temps après nga ñëw di def un bilan positif <laughs> endroit yi nga xam ne ñëpp xam nañ ni Kër Massar actuellement Grand Yoff zone de captage ñu ngi dee ñooñu ne la ñun plan Orsec dañ koy dégg kese waaye gisuñ ko mm. moo tax mu waxoon la fii Antoine Félix Diome moom si ban Sénégal la nekk <laughs> ban Sénégal la nekk moom fii dara baaxu fi tali yi fii jotoon a baax sax nawet bi yàq na ko tali bu baax amatul Dakar mbedd bu baax amatul Dakar dara lu baax amatu fi autorités yi man je pense seen discours yu neex la ñu yor mais liggéey carrément wàcc ci terrain bi liggéey ba askan wi kontaan ci ñoom ni ñii ñu ngi liggéey loolu amu fi. donc plan Orsec bi ak buñ ko déclenché ak koppar yi say dem nit yi gisuñ si seen bopp parce que ñu si gisoon seen bopp euh, Abdou Khare li muy lim ni yëpp ak problème yi kon du fi am wala réglé nañ ko parce que urgence la ñu wax réglé nañ ko. taf-taf même pas 48 heures 72 heures ñu régler la problème mais les zones les plus touchées ne la ñoom plan Orsec dañ koy dégg yegg seegul si ñoom alors que le ministre de l'intérieur tire un bilan positif ça pose problème beneen bi muy affaire courant bi man am na yoo xam ne damay jël responsable bi du ma si du laal sa population bi dama naan Sénélec moo si am responsable parce que ñoom ñooy gérer affaire courant branchement bu baax ak bu bon si population bi la dama naan ñoom seen responsabilité la parce que courant boo koy branché war na am norme yoo xam dinañ ko respecté ñoom ñoo war a jël seen responsabilité côté yooyu si branchement clandestin mm. jaar na yoon jaarul yoon inondation am na mooy li ma la wax parfois da ngay gis fii lu courant bu daanu si benn kii benn euh, fii lu courant yu am doole yooyu nga mm. xamante ni da ngay woote waa Sénélec di leen ko signaler. da ngay woote mën nga nekk euh, mën nga toog une semaine di leen ko signaler pour nga gis ku décrocher sax wax ak yow. normalement loolu la ça ça pose problème alors que danger la danger bu doy waar. Ah? donc loolu côté boobu man duma nekk sax ay naan ñi ki fi dëkk ak branchement clandestin population dama naan yooyu c'est la responsabilité de la Sénélec ñoom ñoo war a jël seen dis parce que gis nga réew bànqaas bu ne dafa am ku koy yor ku koy doxal pour mu normal bu dee affaire courant pour lépp normal lépp jaar yoon euh, inondation amee taw bi bari ñoom ñoo war a jël seeni disposition euh, gérer ko voilà gis nga mais plan Orsec bi moom c'est zéro Jacques est-ce que yéen a ngi fàttaliku mhm. fan yi la jàll wala weer yi passé rek yàggul Macky Sall bi mu ñëwee moom ay chef ay FMI xaw ma ak Banque mondiale ak seen ñoom ñu doon def benn conférence jam euh, ñaa euh, fii CICES King Fat King Fat mais King fat bi Macky Sall yi wax courant coupé mais dañoo dàq ay directeurs yu bëree bëri waa léegi imagine leen léegi Macky Sall moom buy wax daal bu courant coupé dañuy dàq ay directeurs léegi sénégalais yi di dee ci euh, ci ci ci ci courant bi kenn du dàqub directeur directeur bi du leen directeur bi du leen seeti du leen jaale mm, mm. Ah, du bind message du bind dara waaye nag Macky Sall moom buy wax bu courant coupé rek dàq dàq nañu ay directeur mais léegi mais léegi ki yoon production beeg presque ay quatre directeurs lañ dàq. Mhm. ci Macky Sall mu doon wax rek courant coupé. waa léegi est ce que moom Macky waa léegi loolu nag Jacques loolu est ce que nag ñun. wax dëgg yàlla cim réew nañ nekk nag. lu doy waar en tout cas lu lu doy waar. voilà quatrième sujet bi. Mhm. Euh, état bi mu mel ni mu mel ni sax laay wax parce que c'est pas encore euh, dafa xaw a dellu ginnaaw ci njaayum benn pàcc université Cheikh Anta Diop de Dakar muy assiette euh, école nationale de l'économie appliquée gannaaw bu SAES génne di tàngal menacé dinañ boycotter lii di rentre année sco année scolaire bi di ñëw le trois octobre. Euh, ni ki démb nag président Macky Sall mi ngi wax nag dañu war a def euh, mu wax na ministre budget ak ministre bu ñu démb waa ñu enseignement supérieur ñu def tout ba intégrer euh, ba préserver li di espace SEA boobu noonu rendre ko aussi ay compte de retour parce que on suppose que santul benn yoon sant leen ñu <laughs> jaay loolu man loolu laa ci tiire mm-hmm. xaw nag waaw maanaam daal la ñuy def yëgu ko woon. voilà mu nga koy doogee nag euh, Sylvie wax dëgg yàlla euh, huit mille six cent mètres carrés. Mm-hmm. lu baax la kenn waru ko kenn du si félicité Macky Sall ci lii mu wax ñu annulé ko ndax xamul tax. Mm-hmm. moom moom bu moom respecté wul Sénégalais yi ndax xoola dante gii nga xamante ni tey lañ fa dagg Macky Sall faale mais suñ géej gii ñu jaay jaay li dende géej gi Macky Sall lii bu kenn waru ko woon a xëy sax di ko tiitre ndax Macky Sall dafa bàyyi ay hectares askan wi. mu jël jox koy promoteur immobilier ci loo xam ne tegul fenn. yow ay huit mille six cent mètres carrés rek ah bi xëy na waaw Macky Sall ne na leen weñ na seen loxo fere na leen dóor na leen nangam a nangam. te xool li fi Macky Sall def lépp ci ci ci ciy tojaange. te tey même même si même site bii même ci même site bii di gis naa tey Libération mu ne am na lu mat trente et un mille mètres carrés yoo xam ne domaine moo ko fa jox ay américains. américains yi tabax fa seenub école ba pare di leen laaj naan leen léegi yéen domaine kay leen daggalaan ñu ab parking fu ñuy gaare suñuy oto ñii kan lañ yàpp léegi loolu tey gis nga lii jàngal gis nga lii euh, euh, euh, jàngalekat yi def mag Sall defu ko pour dafa bëgg lu leer de wala dafa respecté njàng daf ko def xam ne jàngalekat yi bu ñu mën menacé seen grève bi mën naa tëdd dakk mm-hmm. xam nga gars yi ñoo dénoncé Macky daw arrière bëgg see raxasu ba set wecc état noonu lay def day làqatu ci ginnaaw ñeen na léegi bu ñu ne wóop sàcc mu daw léegi tay la ñeneen sacrifier sacrifier ñeneen ndax xam ngeen ne am na loo xam ne gis nga gis nga nag gis nga nag dénoncé man chaque jour loolu laay wax ci presse bi ndax gis nga dama doon waxtaan benn homme d'affaires bu mag a mag a mag ci affaire ay marché ni mu ne mu ne nguur gi dalay jéem dana la parfois Macky Sall mu jox ma exemple ci Macky Sall mu ne dina am marché yoo xam ne état bi du nangu di ko jox yenn entreprise yi wala mën a ko lu tax mu ne kooku buñ ko kiñ koy jox peut-être mën na bañ a crédible wala nangam mu ne mm-hmm. presse bi dañ koy dénoncé mu ne Macky Sall day day day sóoraale yu dénonciation yooyu presse bi di def. Mm-hmm. loolu moo dem ba Macky Sall euh, maîtriser loolu gis nga Macky Sall dafa maîtriser yi presse bi doon def te gis nga lii am nii dafa am ñu si wax rek Macky daw deuxième mais li doy waar ci réew mi Sénégal te muy am. te kenn du ko dénoncé Macky Sall dëgg ci tànkam mais daw bi baax na yow bu dawloon fii ngeen di dafa dëgg non xaar ma la rek xaar ma rek la dox mu la dox baaxul <laughs> xamul tax non non la la jox importance su dénoncé gis nga réew xamalan moo ko yor gis nga moo tax gis nga dañoo baax ci Sénégal gis nga ñiy dénoncé maanaam dama la bëgg expliquer na la bëri na lu am ci réew mi journaliste yi yëg ko te dénoncé wu ko te gis nga buñ jógoon ñoom ñëpp ñu ne yuuxu saag ci état ngi def loo xam ne jaaduwut askan wi jóg leen nangam nangam état day deltu ginnaaw ñoo ñu nag di nekk ay ñoo ñu ñoo ñoo seetaan léegi ñoo seet ñoo dénoncé tut moo tax li dañaa dañoo dénoncé huit mille six cent rek Macky Sall daw ah ak ñi ma àndal daw te am na yeneen yu fi am yoo xamante ni war nañ koo dénoncé comme nii hmm. ndax ñoom nguur gan la nguur lañ yoo xam ne bu ñu defee benn affaire dañuy xool ba xam di yurndu nguur ga yurndu lañ hmm. bu kenn ñëwul ñu continuer bu ñu yuuxoo ñu am ñu ñu réclame ñu dayle. jaajëf Moreau mu mu mu mu euh, comme que la comme ni suñu déggee en tout cas euh, ni ñu waxee maanaam jiitu réew mi yëgul woon euh, pàcc boobu nga xam ne bëggoon nañ ko jaay te bokk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar en tout cas loolu dina ma dina ma jaaxal trop que yëgu ko woon mais dama jàpp ni yëgoon na ko mais dafa reculer par rapport ak actuellement gis nga activiste yi ñi yënga waa SAES e ainsi de suite ñu bëri jóg nañ. pour xeex pour li ñu def hôpital Dantec euh, ñu bañ ko def université Cheikh Anta Diop bu Dakar peut looloo tax euh, nguur gi di xool nu muy reculer nu muy setalee boppam euh, ci li nga xamante ni naroon na ko def parce que gis nañ ne man sa nee naa Sénégal pratiquement jaay nañ lépp suuf seeg jaww jee xam naa nit yi ñoo def ñun nuñ lay ñun ñuy jaay wala nuñ ñuy tayle mais comme que ñoom gis nañ ni alerte nañ nguur gi dellu nag ginnaaw en tout cas c'est une bonne chose parce que avoir un résultat positif te bu fekkente ne nguur gi li mu wax euh, dina ko jëfee damay jaakaar ni am nañ un résultat euh, positif te jàpp naa ne euh, yu ni mel nguur yi war nañ ko di di di éviter. Mhm. di di brader di jël suñuy suuf di jaay di jël géej gi di jaay maanaam daal di jël askan wi lu ñu war a jëriñoo di ko brader di ko jaay pour seeni intérêt te askan wi du ñu ko yëg yooyu war nañ ko daal di arrêter parce que li am ci réew mi nii Sylvie mën na indi soulèvement populaire. Mhm. am ñu xam ni lii c'est l'état état dem ba ci biir bëgg ci rocceeku bëgg ci setal boppam parce que loolu kenn mënu ko comprendre lu mel nii di am euh, njiitu réew mi ne yëgu ko war a autorité yi ko war a yëg ne ñoom yëgu ko loolu c'est inimaginable donc comme que reculer nañ wala euh, ñu ngi promettre que dinañ reculer ci mbir mi euh, c'est une bonne chose pour man lu baax la parce que parfois booy def mbir nga gis sa askan bëgg ko ñu alerter pour man état dangaa war dellu gannaaw fële Dantec c'est normal parfois sax mën nga def benn mbir bëgg continuer nit yi yëg ko génn ne ànduñ si lii baaxul arrangé wuñu loolu du dara du mm. faiblesse de mm-hmm. du faiblesse si état euh, nga daal di dellu gannaaw xoolaa def li nga xam ne askan wi euh, moom la bëgg yaakaar naa ne loolu da nga siy gagné mm-hmm. ay points mais doo si perdre dara comme c'était le cas euh, à Dantec état bi waroon na si waroon na see dellu ginnaaw mm-hmm. Sénégal yi gaaw na ñoo fàtte yow ku bàyyi ay hectares dagg ko ñu wax ñu wax la nga lànk Dantec tey nga ñëw fi huit mille six cent mètres carrés kese Macky Sall daw ci ginnaaw ñu wala encouragé ko si mm. ñi mu ko sekkal la saayes la xam ne ah. <laughs> jàngalekat yi moom wax dëgg yàlla bu ñu màttee bu daggul du ñu bàyyi de xanaa nga bàyyi léegi nag dànqaafu bi moom xam naa yëg na ko mais tamit lu muy wax ay yëgu koon nañu ko annulé hmm. man je pense que lu toll nii domaine euh, euh, domaine bi nga xamante ne état ko moom surtout surtout fi mu nekk ci ndakaaru ci xolub ndakaaru bokk euh, ci espace université Cheikh Anta bu ndakaaru ndaxte école nationale d'économie appliquée moom ci université Cheikh Anta bu ndakaaru la hmm. kilifa mooy sañ ñëw jaay ko def ci délibéré ba état wala njiitu réew mi du ko yëg buggaan laa dégg mu ciy wax buggaan kaw ma ni wax dëgg yàlla war na mën a gën a informé wu que njiitu réew mi Macky Sall nga xamante ne ay hmm. nitam ñoom ñoo yor suuf si loolu moom hmm. wax dëgg yàlla xam nga tamit état noonu la da ngay jékki-jékki pour euh, sauver son honneur euh, quitte à sacrifier kenn ci say poulain wala kenn ci say nit garaawal parce que yow pourvu que yow sa sa dara set ci rek mhm. loolu mooy ci pexe mais de toutes les lu baax la bu buñ ci deltoo ginnaaw parce que tamit dañoo jàpp ni waxoon nañ ko fi ba taay mhm. ni am na ci ay bërëb yi nga xamante ne euh, war nañu xool ñu bàyyi di ko wàññi bu ñu ko yokkul comme Dantec bi nga xamante ne wax dëgg yàlla waroon nañu xool non seulement nu ñuy defaraatee hôpital bi comme chantier bi ni mu dooree. Mm. waaye nu ñu ko gën a yaatalee mu am ay espace vert am parking ndax Dantec boobu da fay dem sax doo nga am problème mu gaare. Mm. léegi nu ñuy jaayee ay parcelles yi nga xamante ne wax dëgg yàlla parfois nga ñëw foofu yow particulier sax. même pour dugg ci biir ab foo gaare problème la loolu yëpp nag euh, dama jàpp ni njuumte la te waruñu nekk état boo xamante ne lu mu gis ci suuf su baax ci positionné mu jaay jaay géej jaay leneen mais surtout suuf man loolu moom ma ci jaaxal ñun waruñu nekk état baana baana di jaay rek di jaay di jaay war nañu xool ay mécanisme industrie yaa ngi fii leneen ak leneen a ngi fii nu ñuy fexe ba développé ko ba amee ci xaalis ak loolu mais pour ay jaay suuf jaay suuf jaay suuf man yéen yéen ku jaay seen dañ leen jaay Macky Sall di leen a jaay bu jaay seen suuf bu leen kat yow jaay ñu géej yéen jaww sax jaay nañ ko lépp la Macky Sall jaay xanaa ñun ñoo ci des doo wàcc yoon mi yow. yow yow na la Macky Sall. yow nag Abdou Khadre est-ce que yow jaayuñ la sax ba pare. waaw opposition moo ko. bilaay est-ce que jaayuñ ko ba pare sax. <laughs> jërëjëf ba ëllëg incha allah. merci les euh, ba suba.